waaw ñu ngi nuyu bu baax daal ñu ci dikk daal te daañu fi ngir yàlla di nuyu ak leen gërëm. sëriñ bi nee na mi ngi leen di nuyu bu baax a baax yéen ñi fi daje si ngir yàlla ak lislaam mi ngi leen di nuyu bu baax te di leen gërëm. waaw di leen dénk rek ñu farlu ci li nga xam ne moom la yàlla ak te leen digal ngeen farlu ci nga xam ne moom la leen yàlla ak yonent bi ak sëriñ bi santaane. fas yéene fas yéene di ci farlu bu baax. fas bu baax. yi ñu tere yi ñu fas yéene di ko bàyyi. yi ñu tere yi ñu fas yéene di ko bàyyi. di ko wattandiku bu baax. di ko wattandiku bu baax. xam ne ci biir loolu la ku ci sax rek mën ngaa rafet njort ci sa lislaam. te xam ne ci biir loolu ku ci sax rek mën ngaa rafet njort ci sa lislaam. bañ a tilimal sa biir ak sa biti daal. bañ a tilimal sa biir ak sa yëfi mooy daal. ci lu aju ci yëfi bakkan wala yëfi mooy. te fàttali ko ànd ak ndax jege naa àdduna ak àllaaxira dañoo jege lool daal. nee na te ñuy fàttali ko ëllëg ndax àdduna ak àllaaxira dañoo jege lool. waaw te koo xam ne am nga xel daal doo ko da nga ko bàyyi xel foo toll. te képp koo xam ne kii am nga xel da nga bàyyi looluy xel bu foo toll. di sàkk lu nu jëriñ foofee. te di sàkk lu nu jëriñ foofee. waaw waaw ah, mu ngoog wasalaam teewaay di ñaan subhanahu wa taala ñëwum fii nekk yërmande ci doomu aadama yépp yi nekk ci réew mi rawatina nag ci xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yi ci nekk yépp ndax sëriñ dafa wuuteeg kilifa yu baree bari dafa wuute waa kër sëriñ Touba ci yu baree bari ndax moom léppam daf ko nëbboon ndax boo loo ma sax ndax mu ne ah loolu daal solo li am solo daal ëllëg si bi daal fa ñuy fayee góor yàlla kenn du la fa man loolu moom moom moo nekkoon ay xalaatam moo nekkoon ab gis-gisam moo taxoon yu baree bari ci xeet ci xeet yi ay mbiram daf ko daan nëbbu waaye la mu koy nëbb na bi du tee it warees na koo mën a jéem a xeñtu gë war war koo mën a gëstu ba mën cee am lu ñu ci mën a jàngate war a mën a amit loo xam ne dañ ko mën a jariñoo ngir ñi nga xamee ne kon ñoo ko fekke wutoon ca it buñ bu ëllëgee ñu laaj kan mooy sëñ laa ñu ne ah ñun de sëñ Mourtala lañ ca xam mooy caatum sëriñ Touba bu ko defee loolu lépp kon daa war a a xam ñu war a xam ak dundam te noonu nga ko waxee ci biir waxee dana leer ndax moom dundam gépp da daan wax ne sama dund gépp inna salaati wa mamaati wa nusuki wa mahyaaya lillahi rabbil alamin ñu ci àggee te mujj ay lam daan wax kon nañ xam ne dundam gépp joxoon na ko yàlla noonu nga ko laaj sëñ Lamine ci njëlbeen gi maanaam kon gannaaw dañuy waxtaane jëmm jëmm nag nit la war a doon nit kooku daa war a am fu mu tàmbalee war am fu mu feeñe war a am nu mu doxe loolu mooy lan histoire moo bindoo ne waaw bu ñu nee sëñ Mourtala kon fu sëñ Mourtala ganee àddina waaw fu sëñ Mourtala jànge ak fu sëñ Mourtala maanaam defee ak li nga xam ne mooy ay tur ak tur tànkam loola kon mooy nachatuhu wa taallumuhu fi mu feeñe ci jamono ak fi mu jànge ah sëñ Mourtala yàlla dogal na mi ngi feeñe daarul alimul xabir foofu la feeñe ci jamono daarul alimul xabir nag Sëriñ Tuubaa moo ko sancoon maanaam mille neuf cent mille huit cent quatre-vingt-onze la ko sancoon gannaaw bi mu sancee Touba ba mu am ñetti at dëkk boobee nag daa mujj sax far turu Serigne Touba wax xaw mel ne lu randu ñu di ko far wax ndaam loolu sax Serigne Touba daana ci maanaam euh, euh, tooñ sëñ ndaam ne ko ah, yéen de jaaxal ngeen ma maanaam mag mu sancub dëkkam ngeen fexe ba soppi ko waaye daarul alimul xabiir Serigne Touba moo ko sancal boppam léegi nag boo boo newul ndaam daanaka duñ ko xam foofee nag la taxoon ne mooy dafa bàyyi woon sëñ ndaam mu doon ko mu muy muy jëfandikoo ndigalam di jàngal ay tuut tànkam ak tuut tànki lenn ci murid yi loola kat moo tax sax far jëmmi ndaam joojee léegi maanaam far soppeeku loolee. ndaam googu di daaru alimul xabir noonu la ko sëñ Tuubaa tudde woon fa la sëñ Cheikh Mourtala ganee àddina moom na mi ngi ganee àddina ci ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru gàmm ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru gàmmo ci atum masasin mooy lan 1340. léegi lii it bi ma ci def ay gëstu laaj naa ko sëñ Moustapha Abdourahmane loo ne ko waaw sëñ Moutalla fu mu feeñee ci jamono mu ne mu ne ma ah man de mas naa koo laaj soxna Njaxat Sill soxna Njaxat Sill nag ci ñi nga xamee ne dañoo nekkoon ci ron ku baax ke maanaam ummahatul muridina ci la bokkoon. sëñ Moutalla de ñaar fukki fan ak juróom-benn la feeñ ci jamono nekk ndax booba la sëñ la sëñ Moustapha daf ne ma li ma doon gëstu mooy nu mu magaanteeg soxna Mousli xam nga soxna Mousli ko mag mu topp ci nee na soxna Njaxat ne ko man de la ma ca defub takk mooy sëñ daam day terale na sëñ fan weeri gàtt ak ñett xam nga mag ñi dañoo amoon seetlu ca bu ñu gisee mag def lu lu ñu miinul rek dañ koy laaj gis gën na caa rawati ñoom ñooñu nga xam ne maanaam dañuy jàngale. ndax nee na dama seetlu ne maanaam bi weeru bi weeru gàmmu gi teroo rek bi suba seet sëñ daam reyum xar ñu di ko def di ko def ba ñaar fukki fan yaay ak juróom-benn léegi sëñ laa feeñ bi mu feeñee xam nga bu bis ba léegi maanaam war a doon ay ñetti fan ca ca ca rakk gàmmu ja xam nga ci leen ko war a jox ci tur bi boo xoolee loolu da leen daan jox ko léegi weeri gàtt ak ñett ca xam nga ne 33 ah mbir la mbir la dunu Seydina Aïssa dunu Soxna Jaara li seen Tuubaa mujj a jaayante muy asmaanal ak jooju kon yàlla rek a xam waaye lii daal soxna sëñ Moussa nettali moo ko nee na soxna njaxat si la moo ko nettali wax sëñ sëñ kon sëñ Daawit mel na am na lu mu doon xam ci ne gànna ngi ñëw ndax weeru gàmmu teru nga tàmbali di waajal koo xam ne nii la yàlla xam doy feeñagul kooku it kon ma na am na lu ko sëñ Tuubaa dénkoon waaye loolu lépp sëñ Tuubaa ko def ci moom rek. bi nga xamee ne yàlla dogal na na ci jamono lu yéeme sëñ Murtala dafa àndaale aw turam maanaam ci loxo ndeyjoor bi fii nii maanaam Muhammadu ji ci la ci la ci la nekkoon léeg-léegi maanaam daana toog ba ba ba yàlla dogal ku ko neex mu wan la ko waaye la ci yéeme léeg-léeg dana ko wan nit du ko gis waaye moom tur bi da ko nga xamee ne yàlla dogal na it maanaam feeñ na ci jamono sëñ Tuubaa boobu mi ngi njaaram dafa bind ci aw kayit Muhammadu bi mu ñëwee bi ko bi maanaam sëñ sëñ daam léegi ne maanaam ne Mouhamadou moom la ko baax ki bind waaye sëñ daam nag moo ci yokk nag Mourtada ji jëmmi Mourtada ji moom maanaam man manu sëñ sëñ daam la. maanaam waaye sëñ sëñ Mourtada Seexul Xadiim moom Mouhamadou la bindoon waaye moom it aw turam it Mouhamad ci loo xam day jar bi maanaam da da caa feeñoon fes wecc ma kon noonu. sëñ daam moo ci yokk ma Mourtada ji ba far yàlla dogal loola kon di kii di di lu ñu xamee ko. taalibe yi ku nekk ci turam ak i santam lii nag moom mooy li ne mooy xew-xew bu fi jotoon am fii ci Paris tolloog mois d'août 1991 di teerute sëñ Mountakha Mbacké doom ci sëñ Touba Mbacké sëñ baa ngi noonu taalibe yi ngeen di seen mooy taalibe yi fii ci aéroport doon ko teertu ñi mu ànd ràññ nañ ci Serigne Sam Mbaye Serigne Abdou Salam Serigne Moutada Amar nañ tamit jëriñ ju mag bu ñëpp fii ci Paris di Alaaji Yanda Diop ya yaa rahiimu yaa nadiiru najjayta man ngeen seen ci ginnaaw mu ànd ak sëñ bi a mooy sëñ Dramé ñëpp xam fi ci yoon wi الملك الرحيم ذي الأزمان كرمني في مولد a مكرم بلبن زوال الذي أكرمني الرحمن إلا من كفى كل يدي الرب وقفى ناجيت ربيا بزار رملان زار الأمان والمنى وفيدان إن الذين كفروا وامتنوا من توبة روا جزاء ما ذنوا بدونهم سكنها أقارب sëñ Bassirou loo nga ngeen seen ni muy toog moom ak taalibeem dañu ñëwoon di siyaare sëriñ bu mag bi sëñ Sam Mbaye waa daayira bi ñu ngi préparé thème conférence bi yi ñuy war a waxtaan sëñ Sam bokk na ci maanaam ñi war a jugé waxtaan wi ñu war a def ba màggal gi mu ngi nekk en plein préparatif ñoo nekk noonu ngeen seen waaw euh, moom waxtaan na ko ay yoon moo di lislaam liggéeyal lislaam taxawu lislaam xëy nit ñi ci lislaam dimbali leen di teew ci seen kanam ñu di ko gis di fàttaliku ki mu doon ak fi mu jóge di beesal xoli taalib yi xoli jullit yi di leen delloo ci yàlla ndax moom fu mu waxtaane day digle di ñaaxe di santaane góorgóorlu ci diine ngir jullit bu nekk lu ci jéem a xam diineem ba xam ko bu ko xamee mu am xér ak dogub nekk ci xam ne moom rek moo am njëriñ te moo koy jëriñ fii ak ëllëg diina nag di ko waxee léegi diine lislaam a tax wax ndax alquran dafa ne inna diina inda allahi al la te diine ji yàlla jàpp muy diine mooy lislaam moo dellu fedd li loolu ne wa man yabtaxi xeyra lislaami diinan falan yuqbala minhu ku jàpp jenn diine ju lislaam suñu borom du ko nangu ëllëg tax moom di ko suñu borom sase wala mu bokk fi mu bokk doon li mu doon mel li mu mel mu xam sas wi nangu ko taxaw ci di ci def li ci war jaral ko wacc ay soxlaam bàyyi këramu gannaaw ak njabootam ak xaalisam jënd biyee jëndaale ay nit ñu mu yaakaar ne mën nañ koo taxawle ci loolu ci kat kenn ku nekk fet danga dikk ba agsi fii jàkkaarloog taalibe yi xamal leen li leen war xamal leen ne dara amul solo bu ñu jàpp sa diine na nga ko war a jàppe diine jiit li koy taxamat boo ko ne ba noppi ànd ci di ko jëf nga ànd ci koo xam ne su borom daf ko cee defal du tax mu mën a xettalee mën a dimbalee mën a jubal ci tànk yooyu nag la amee pas-pasu di ko def di ko tàmbalee yàgg na yokkatu ci sonn ci nopp ñëw ci itam nekk ci rek di ko def parce que yéen di ko def ba faw fi mu koy mën fi mu ngi fi am yàgg loolu moo doon ay tànkam naka jekk itam moo mas di ay tànkam waxtu wu ñëwee yoon wu nekk rek gën a xeer ba wan nga xamle it li mu bëgg mooy rek ne lislaam di mat na ci nit ñi nekk niñ ci war a nekkee ragal yàlla watandiku yépp lu ñu leen tere góorgóorlu ci lu ñu leen digal nekk itam ci yoon wi xam ko ndax nit yoon wu mu soobu wala ni ca la nekk benn war na xam lu yoon wi xam ki tëral yoon wi xam ci lan la ko tëral xam li yoon wi bëgg ak li mu bañ meloo yi itam meloo ku ne ci yoon wi ndax yoon wi ko ci nekk war loo nekk nit ku ñuy xeeb ba ki xamul di yàpp yoon wi ngir yow defe ne ñu ci yoon wi ne lañu war a mel nekk ci yi dañoo war a xam dañoo war a jëfe dañoo war a am yar ak teggin am farlu am ragal yàlla gu dëggu gu wér gu nekk seen xol ñu di ko jëfe ñu fonk tege suñ boroom yi ak ndigalam yi wattandiku tereem yi ragal koo def sab sëriñ bi leen jiital ñu yaakaar bi leen jiital ñu yaakaar ko ngir yàlla àtt bi àdduna ak àllaaxira te sëriñ bi di buntu texe buntu texe ku ca taxaw bëgg a dugg dangay am caabi am caabi mooy taxaw man a ubbi lan mooy caabi ji dégg ndigal ak sab ki ne ci sa mu muy sëriñ bi gannaaw yàlla ak yonent bi boo ko defee te amul xer ndax wax nañ ko ba tey buum bi nga xam ne moo yeew sëriñ bi ci taalibe bi mooy sopp gi ko taalibe bi sopp waaye du sopp gi sëriñ bi sopp taalibe bi sëriñ bi lu mu sopp sopp taalibe bi te taalibe bi sopp ko mënu koo jariñ sopp gi ko xam ne moom la ko taalibe bi sopp nag ci la mën du ko jëriñ ko yoon nag boo ca nekkee yoon wi jub xoj ci jëm ci yàlla ki koy tëral di royukaay di ko war a teew ci xol ci waxtu wu nekk nga gis itam ku la ci ñaax di la ci fàtt di la ko fàttali di la ci jëñ di la ko gën a bëggloo di la ko gën a xamloo lii sëñ Murtada di def wàcc na ki tëral yoon wi wàcc yow yaa ci des yow nag sa itte rek ak sa bëgg mooy sa moyen bi nga war a jëfandikoo ngir am ni nga bëgg lu ci manque ci yow lay doon waaye du ci moom am di wasuuri li man kulli bi saara la wari dan doona saxta inda sar saara law sanaa wa ridwaani bila saqatin masqaada li min bani daymaan ansaara lillahi kulla da abaari makramata min ataana fa jaman saara inna lesina ila sar saara xat xasado siyaardan faaraqoo daari aw saara kon asalaamaaleykum bokki taalibe yi bokki lislaam yi noo ngi leen nuyu di sant di gërëm ci seen teewaay bi ngeen teew fii ci hôtel de France bi yàlla dogal sëñ Mourtala Mbacke ñëw fi nu war fee wax def ay jàng suba di gaaw bi di fukki fan ci weer wi Eh, yàlla dogal na taalibe yëpp ñëw fi yoon wi nga xam ne moom la sëñ Mourtala di dox nag mooy fas yéene taalibe yëpp doon benn bokk ndey bokk bàyyi ni ko lislaam santaane ndax alxuraan def ni wa'tasimu bi hablillahi jamii'an wa laa tafarraqu kon loolu mooy yoon wi nga xam ne moom la sëñ Mourtala di dox si bëgg taalibe yëpp doon benn kenn ku ne jàppanteeg sa moroom eh, bala ma cee sori sax xanaa ma jox Alaaji juuf Alaaji Bamba Diouf ki nga xam ni mooy suñu njiit moo jox ko kàddu gi asalaamaaleykum mm, mbokki taalibe yëpp du ma sori ci kàddu yi damay jox suñu bàyyi laaj Yande Diop moom mi moom mu gën a leeral eh, yëngu bi nga xam ne nii moom la mbootaay gépp ànd di yëngu ci ndigalu Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké baat baat yi ma ci dugal rek mooy suñu boroom ci boobu moo wax ne taawanu alal birri wa taqwa wa taawanu alal ismi wal muy loo xam ne daf ñu koo digal ngir ñuy dimbalante ci topp yàlla ak ci benn te bañ a dimbalante ci noonoo euh, bi Serigne Touba ñëwee jamono bindal bàyyil ñu fi wàjta idoo fi taati rahmaani ay su takkoo noona bilaa udduwaani na ngeen sax si topp yàlla fu ngeen mën a nekk ci àdduna bi kon xamoon na ne dana nekk fii tey ci lu dul nag ak noonoo waaye mu mel ni rek lu ñàkk dégg mu doxaat ak tànkam nag ba yeg si fii fi nun yeesalaat mbir moom muy jamia bi nga xam ne ni ci loolu la tënku muy ànd nekk benn di dimbalante ci topp yàlla ak ci liggéey أو قرئت أو نسر إليها إلى الجنة التي وعد المتقون وجل من الآب الشكر إليك وإليه عليه الصلاة والسلام بسم الله يا مولانا sunu boroom yi ñu góorgóorlu ci seen kem kàttan tey wattandiku tere yi suñu kem kàttan di leen xamal ne ànd bi muy santaane mooy ànd bu jëm ci yàlla rek ak yonent ak ni ko Sëriñ Tuubaa bëggee ndax ànd lu mu rëy rëy te yàlla taxul yonent bi taxul ni ko sëriñ Tuubaa bëgg demewuñu du am solo kuy jëf dangay ngay jëf loo xam ne yàlla rek moo tax te moom di dafa bëgg nit ñépp nekk benn jullit ñépp rawatina taalibe bi lu dajale suñu kàttan dajale suñu man-man dajale suñu xam-xam delloo ko yàlla mi ko joxoon ba mu jeex tàkk ndax suñu ko deful it du ñàkk jamono joo xam ni dana ko jëlal boppam bu fekkee delloowuñ ko ko woon loolu yaranga ju rëy lay doon وبالأمان والصفاء كلي وانشر علي بركات سجدان يا قائدا إلى المجيد مجدا وليها القراء بالأحزاب عبادة تعلو بلا أحزاب تسليما يا رحمن يا رحيم ربي بما يسروا لسان قد فجاها بجاه أفضل من لله خلجها الحمد لرب الكريم لا شريك له وصدر اليوم نورا ساجا ملاها محمد صلوات الله أبد عليه اسبي قلبي كلها أدعو إلى الذي أمن مواعظ لجملة الخلق ما يختار من براها ناجيت جل أهواما وكرمني تكريم حاتم كل من لقى برئا رحمن أبي جميل خلق رحمة من يخني عن السار من قرآن وخراء حرمة المستوى عن كل مشدتي وترم الخلق يا من جاد بدها يا مالك الملك يا من جل عن خواد ارحم جميع الورى يا آدي لها ما تمن خنعا والخل من درر بجاي أفضل من لله خلجها اللهم صل على سيدنا محمد وسلم بوك جليلي بوك الإسلامي بوك طالبي ñu ngi fii tey ci Paris France dans le 15e arrondissement di bis boo xam ne bis bu màgg la di bis boo xam ne Serigne Mountakha Mbacké moo ko jagale taalibe yi nga xam ne ñoo nekk France ak Europe yëpp ñu de def ko fii tey ci hôtel bi te bala ma ca sori rek xanaa ma jox sunu bàyyi sunu sëriñ ki nga xam ne mooy jëwriñam fii di Alaaji Yande Cheikh Mourtala yàlla na fi yàgg ñu mm. jox Alaaji Yande kàddu gi rek mu war mu leeral lu waral bis bi ak lu waral taalibe yi ak lu lu sëñ bi santaane ci biir taalibe yi hmm. kon allah jàll bismillah hmm. euh, man de li ci xam bariwul ndax dama amul xam-xam fi may njëkki daal yal na sëñ Saliou Mbacké yàgg fi suñu këram yal na sëñ Saliou yàgg fi suñu ak Cheikh May ak waa kër sëñ Tuubaa gépp ndaxte bi ñuy tàmbili lii de yàgg na wante bis bu ne day jëm ci kanam rek. fédération bi nga xam ne moom na si moo Moutala ba bëgg. su sunu sunu lépp xaj na ci. Mm-hmm. sunu lépp xaj na ci. Mm-hmm. kon nag nañ ci def sunu lépp. Mm-hmm. rahmatullahi taala bokki jullit yi bokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu ci turu cheikh mohamadul murtada mbàkki di leen jottali ak cantam ci seen pasteef ci seen taxawaay ci li nga xam ne nii e, fu mu jëm ñam fay fekk loolu la leen di sant ñu nekk ca mu seetlu ne ba mu fi tàmbalee ñëw ba léegi saa bu fi ñëwee euh, dina fekk lim leen santoon ngeen jéggi ci ay jéego yu xaw a sori te lim leen sant di leen rekk gannaaw bu ngeen góorgóorloo ci santaane yàlla yi tey wattandiku tere yi mooy ngeen booloo booloo googu du loo xam ne nii moom moo ko sos yàlla mi ñu bind moo ñu sant ñu dajaloo ndax ci dajaloo googu ci la ñuy amee doole ci la ñuy amee kàttan mu wax ne waatasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu ci kaw loolu la sëriñ bi jóge sos jamiya boobu mu tudde jamiyatu taawuni ala taatillahi wa rasuli muy association boo xam ne daf ko sos ci senegal euh, di def fépp fu mu dem ci àdduna bi digal ña fa nekk ñu sos fa ab bànqaas eh, ndax bu ñu boolee yépp li muy liggéeylu te lépp jëm ci yàlla eh, association yooyu am doole ba mën koo doxal ci kaw loolu ci la digle mbirum kër gi mu leen digal ngeen jënd ko fii kër gi nag jënd ko ngir ay nit di fa tëdd di fa nelawe walla nit di ñëw di fa dal daf koo jënd lu ngir mu doon barab boo xam ne nii dañ fay jaamu yàlla di fa tudd yàlla di fa jàngale alquran di fa jàngale loo xam ne nii mooy tax nit ki mën a xam boroomam ba di ko jaamu loolu mooy li nga xam ne moo ko yëkkati fu mu mën di nekk kon nag bu leen ko digalee ngeen dem ba toll fii ngeen ci tollu dina leen ñaaxaat ngeen gën a góorgóorlu ba loolu mu leen digal ngeen egg ci euh, ba bu fi dellusee fekk ñu naan fii kët def nañ ci kër gi jàkka def nañ fi jàng boo xam ne nii doomi taalibe yi tàmbali nañ faa jàng loolu daal mooy li nga xam ne mooy li ko ñor euh, mi ngi leen di sant nag bu baax euh, di leen gërëm di leen yokk digalaat ngeen bañ di fàtte li nga xam ne nii moom la leen yàlla digal ndax képp ku ci taxaw ci li nga xam ne nii moom la ko yàlla digal di wattandiku tere yi de lépp lu mu dugg yàlla dana ko ko jàppandal ku def safaan ba nag ah, lii daal mooy li nga xam ne moom la digle mi ngi leen di sant di leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. wax ko nag mooy bis bu ne. nekk ndax moo di teertu ak feeñal sunu yéene. ci gan gu mag gi nu yàlla baaxe mu di mu cheikh du mortada ibnu xaadima rasoul nga xam ne moo jóg ngir nemmiku si nun nemmiku si nun taalibe yi ngir fàttali fàttalinu ak yeesal ci nun li nga xam ne moonu boole ak xaadima rasul tax nu ànd ak moom te moo di xam yoonu sunu borom subhaanahu ak sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak yoonu xaadimu rasul yi mu xàll ngir képp ku bëgg a jëm ci yàlla fàttali nu ko yeesal sunu doxin ak sun taxawaay ak sun pas-pas ci loolu waxtu wu seex mu Amadou Mor daa jóge rek loolu moo ko yëkkati mu mel ni kon comme ni ko bokk yi jiitu waxe daanaka mën nañu wax ne rek fii seex mu Amadou Moustapha Diatara di sunu mag di sunu kilifa di sunu njiit ci jataay yu mel ni yii fi mu yam rekk mën nañu wax ne fi la ñuy sof daaru salaam daarul salaam دهني الذي كفى الخطوبة للديور سم وهي التوبة أشكره إن شاء فيها بالسلام شكرا يقيني أسن مع ملام waaw sëñ maanaam maanaam da kii bureau bi nga xamante ni ñoom ñoo yor daayira bu mag bi bi yor kër sëñ Touba bi fii ak mbooloo bi ci France yëpp ñoom ñoo lay nuyu tey di la ziar di la xamal ni daaw bi nga fi jógee ba léegi am na liggéey bu ñu fi sasoon mooy bi nga nu fi bàyyiloon bokk na ci yi nga xamante ni ñoo ci gën a am solo muy njàngaleem alxuraan ci kër gi eh, daaw bi nga fay jóge yàlla defoon na nu ngi nekkoon ci ay fukki dong ak ñaar ren bi nga xamante ni at maa ngi bëgg a jeex dem nañu ba jige juróom benn fukki dongo waaw ki nga xamante ni kii nag moom moo yor liggéey boobu mooy sëñ Bousso be mii waaw Bousso waaw. jàkka ji jàkka ji itam ci ni ñu la ko wane wan ci dessin yi nga xamante ni sëñ Ibrahima Niang suñu architecte euh, defar na ko ñu ngi ci josoon teg waa mairie bi ak euh, muy euh, abri yu ñu ñëwoon fii seet si la ak préfet bi waaw waaw maanaam maanaam ñu ngi ci ak waxtaan ak ñoom daal ñu ngi ci sàkku ñaan yàlla defal ñu ak juboo ak ñoom maanaam loolu ñuy wax autorisation de construire ci jéego yooyu lañu nekk ak ñoom waaw doon ñaan sàkku ñaan yàlla defal ñu ak juboo ak ñoom incha allah waaw kon eh, sëriñ bi mi ngi leen di delloo ak cant ak ngërëm gis na it taxawaay ak liggéey bu rafet bi nga xam ne liggéey ngeen ko kon nag mi ngi leen ciy sant di leen gërëm di leen ñaanal ci yàlla mi tax ngeen di ko jëf mu defe leen ci darajey sëriñ Touba lu kawe seen njort ci li ngeen jëf te lu ngeen ci jëf itam yàlla dencal leen ko fu yàq yëgut gannaaw cant ak euh, ngërëm yooyu nag mi ngi leen di soññiwaat rek fàttali ci lim leen baax woon a fàttali muy ngeen góorgóorlu waxtu wu nekk ci seen mbiri diine yi suñu borom subhaanahu yi ngeen taxaw ci li nga xam ne it mooy tere yi ngeen di ko moytandiku kemtalaal seen kàttan tey waaw tey tey waaw tey dimbalante ci seen biir te xam ne kat loolu mooy li nga xam ne mooy war góor julit ak mbokkum julitam di dimbalante ak a yërëmante waaw ndax nee na kat ragal yàlla gii mu leen di digal waxtu wenn wu nekk moom la yàlla ne képp koo xam ne mi ngi ci yow népp mbir moo dugg mu nekk yàlla dana la ci génne ak jàmm tànk-tànk yoo nekk yu nekk yàlla dana la ci génne ak jàmm jafe-jafe yoo nekk yu nekk yàlla dana la kenn génn jàmm kon nag ragal yàlla mooy garabu lépp loo xam ne tawat la wala jàngoro joo xam ne ab julit yor na ko la gën a gaaw ca la ko ciy génne mooy mu ragal boroomam bu ngeen nee na itam lam ca teg itam mooy wërsëgaleen loo xam ne foogu leen ko woon waxtu wenn wu nekk mu di leen jox loo xam ne seen kattan ak seen man-man ak seen i pexe mënu leen koo may ci yéen mënam rekk ngeen ko mën a amee di leen ko joxe fu ngeen ko foogut loolu it ne ragal yàlla rek moo koy maye. bu ko defee li mu doon wax ci jàkk eh, ci liggéey bi ci wàllum njàngale mi ngeen gën cee góor góorlu bu baax a baax ku am doom joo xam ne ju toll ci xamlu mu xam ne loolu war gor la mu indi ko fii ci daara ji muy sàkku xam-xam jàkka ji itam ni mu koy waxe fenn fu nekk rek sëriñ bi nga xam ne moom la ñuy liggéeyal te muy liggéeyal rasulullah yi ak boromam waj al bu yooti kullaha masajida la ñaanan sama sama mboolem fii sama kër rek na nekk jàkka joo xam ne at jàkka lay doon kon nag loolee rek kër googee ci Amérique noonee lañ ko def jàkkal hmm. waaw nee na kër googee mu santaane ca ca ca Amérique jàkka lañu lañ ko def maanaam mu jiite fa ajjuma samp fa it imaam joo xam ne moo fay julli juróomi julli juróom ak ajjuma jenn ju nekk ñu digal jullit yëpp rawatina taalibe yi bu waxtu ajjuma jotee luñ jàppan bàyyi ko ñëw jullee fa ñu wut fa it ab jàngalekat bu mel ni sëriñ Bousso bi buy jàngale diine ay jàngalekat ay jàngalekat ndax sëriñ Basiiru Lo ma nga fa sëriñ Mortala Kan ma nga fa sëriñ Cheikhouna Mbacké it incha allah bu ko yàlla dogalee dana leen fekki loole itam moom lañ bëgg itam fii nga xam ne maanaam moom moom ñoom moom lañ jëkk a mu mel ni hmm? Hmm, jàngalekat waaw waaw mais am na it keneen ku fa <laughs> war a demaat daabo Bakary daabo nga xam ne kon loola loola itam nag da jàng na ba am licence ci arab kon nag noonee mu ko bëggee foofee noonee la leen ko bëggale fii kon nag kenn ku ci nekk nag na ci def itteem fonk kii nga xam ne moo fi nekk di jàngale jàppale ko kemtalaay lu ngeen man te itam seen doom yi itam ngeen xam ne am ngeen ci ay warigar ndax ko anfusakum wa ahlikum naaran la alxuraan wax tey li ëpp solo ci li ngeen di defal seeni doom mooy yar leen yarub diine jàngal leen ba ñu xàmmee seen i farat ak seeni i sunna kooku warugar la ci looloo tax sëriñ bi ci boppam bëggal nu jàmm rek moo tax mu sant na ko kon nag na ci kenn ku nekk def itteem dañ doon wax ne ñoom maanaam mbooloo si fii ñëw seen si rek mm. ñoo bëggoon bi ñu mënee am ndigal fépp fukki taalibe bi nekk am fa koo xam day nekk membre a kër gi bu mm. ko defee lépp luñ fi def ñëpp xam ko waa moom de ne dañoo dañoo wane ne dañoo gis ne daal liggéey bi mbo gis ne liggéey bi mbooloo mi nga xam ne moo ko seq daal di ci dox mooy mbooloo sii rek dafa xaw a néew ñu bëgg nag am ndigalul fépp foo xam ne kuréel bu nekk ci dëkk bi wala ci réew mi tey tuddoo sëriñ bi nekk na fa am kenn ku leen jëmmal ci biir mbooloo mi ngir liggéey bi mën a woyof waaw loolu kon ngeen xam ne kon ndigal la bépp daayira ci daayira yi nga xam ne daayira yi kër yi la wala ay kuréel fenn fu nekk nañ fexe ba mbooloo mi mi mi nga xam ne ñoo nekk ci liggéey bi maanaa gën a bari ndax loolee kat loolee mu waxan ca euh, maxaraj bi rek la sëriñ bi wax lii waq di awaa ija lasina daamoo fii xidmati wa hab lahum maaraamoo la borom wax képp koo xam ne liggéeyam bii di liggéeyam yàlla yaa ngi ci sax sëriñ bi nee lépp loo soxla ñaan na yàlla mu fekk la ca soxla soosee fajal la ko kon nag liggéey sëriñ bi bii na ngeen ci góorgóorlu hmm. waaw kon nag toogaay bi yàgg na yàgg na waaye ginnaaw ginnaaw dañu koy def ñu ko daan defee daaw daaw dañu soppi wan ñi nga xamante ne ñoo nekkaan ci bopp kuréel bi sëñ euh, Cheikh sàll mi moom moo nekk président wu ah, kii bi daayira bi léegi Khadim Thiam di secrétaire général bi ak sëñ Massayer Ndiaye ak Moustapha Camara ñoom ñoo yor affaire xaalis bi waaw loolu ko bëgg si kii mu ne nag loolu la en alxuraan waxan wala tanaa sama fataf solo wa tas aba nee na na ngeen di moytandikoo xëccoo ak def ay kalan ci seen biir ndax yàlla nee na lu ngeen bari bari ak lu ngeen bari bari doole waxtu xiiroo ak xëccoo ak ŋaayoo duggee ci seen biir rek ngeen daal di néew doole kon nag nee na ngeen moytandiku loolu di muñante di yërëmante di dimbalante jàppante te yàlla tax sëriñ bi ñaan ñaan na ko wajal xulóobana ala tawaaduni bila tanasuin wala taxasudi loolee sëriñ bi ñaan nag gàttandu ko mooy mooy mooy jàmm waaw bi sukur arda